Macky Sall dina def troisième mandat wala du ko def. du ko def man soxna Fall maa ko wax te yàgg naa ko wax. gis nga du dem. mais sa réponse bi gaaw na de. maa ko wax gëm gëm li ma wax dama ko gëm te yàgg naa ko wax dem leen fi ma daan waxee. kuy nekk président vint bi duñ fi ñëwaatee dinaa ko wax. ah mais boo ñu wax moom président. déedéet du defaat du defaat troisième mandat man maa ko wax ci kàttan suñu borom. mais mais man man man sama bopp man su ma laajoon Macky Sall na dem troisième mandat wala du ko def politiquement dama naan du ko def. déggoo li ma la wax. du dem troisième mandat. ku cay doon nag ak kan lay doon. Mhm. ba bu fi ñëwaatee. nga wax ko. Mm. ba mu leer mu ne ma nu muy ragal yow. yàlla laa ragal taay moom nee nañu ci kàttanu suñu borom. yow dama sama wax gi dama ca mës a dama ca mës a génn sarta mustaqim samay wax sànq ba léegi dama ca génne yàlla ak bi yow dégg ma la xaq bi xàq fa laay yëngu. nee naa la man Fall Ameth ak Abdallah la. Karim Wade du nekk président Sénégal. ba ma ñëwaat. ci laa koy waxee xoolaguma ko ba ma ñëwaat. te mënoo ko mënoo ko xoolee affaire yi. déedéet wax naa li ma wax ba pare pare naa ci. léegi kon pourquoi pourquoi nga génne woon lii nii pour la woon. waaw wane ma sama bopp ñu xam ne je suis une voyante teg sama junjum ndax lii laa gëm mi ngi nii waa jaa ngi. samay rawaan ànd ak man. ni ma koy génnee kan kan moo ñëw. macha allah du ma ko wax loolu secret la. Ah, du lu ñuy foyee déedéet ku xam fa nga jëm doo yegg. Hmm. Mhm. léegi dooñu seetal tuuti ñu xool. tey du ma seet nee naa la damaa seet balaa maa ñëw. waaw mais mën nga seet seet. barke Xaadim Rasul damaa seet balaa maa ñëw. du seet tey tey.